waa jërëjëf ñu ngi nuyu tey ziar xanaa kàddu yi du bari ndax dama fi ñëw en tant que agent bu direction générale Hizbut Tarqiyyah ngir rek euh, superviser côté admi euh, euh, organisation bi ngir ndigal li sëñ mun Mountakha jox ñu ren te muy lu mu yeesalaat ndax daaw ñoo ko ànd ak moom dundal gàmmu gi fii ci kër sëñ Tuubaa gi muy tawféex gu rëy goo xam ne it ñun dëgg la daf ci am loo xam ne dañ dañ ci féete. Euh, sëriñ bi nangul ñu ko muy cër boo xamante ne ñoo ngi ciy sant waaye nag woote bi kenn moomu ko kenn jagowu ko dong yëpp ko bokk jullit ñëpp ko bokk kon gàmmu gi dundal gàmmu gi ànd ak sëñ Muntaxa ndigal loo xam ne moom lépp di delluwaat ci sëriñ bi kon ñëpp dañu ànd ak dongo yi fekk si sëriñ bi euh, njàngum xasida mi nga xam ne féete woon nañ ko it muy loo xamante ne euh, cër boobu ñoo ngi ciy sant yàlla suñu borom waajal nañ ko bu baax ngir li nu yor ci ay kuréel ci Hizbut Tarqiyyah rek euh, ëpp na ñaar fukki kuréel kon ëpp na fanweeri sax kuréel yoo xamante ne dinañ ko mën a dundal yendoo ko euh, fanaanoo ko waaye du yem ci loolu sax euh, ndax day ànd ak njàngum alxuraan di ànd ak njàngum xasida di ànd ak ñoo xam ne ay équipe organisation yoo xam ne it dañuy taxaw ci wàllu bernde ak lijjanti nit ñi ba lépp tege ci yoon loolu kon nañ ko daan defee ci wàllu expérience organisation noonu rek lañ koy defee waat jigéen ñi fa ñu war a ne ñu ne fa góor ñi fa ñu war a ne ñu ne fa kenn ku ne fexe ba ne ci dara loo xam ne lu am njëriñ la ndax guddi goo xam ne la sëñ Saliou waxoon yamale ko guddi ko ko jëkkoon ak yamale ko guddi ko ga ca topp dara jaru ko ci jullit kon lii moo tax lii mooy sunu organisation gàmmu ànd ko sëñ Muntaxa amit geneen geneen tawféex mooy sëñ Amsa moom sëñ Abdoul Ahad moom daan ko dundale fii naka jekk bi bi bi sëñ Muntaxa ñëwee wéyalaat ko ndigal loolee ko sëñ Saliou joxoon kon muy muy benn liggéey rek ñu nga xam ne ñu ànd ak moom ànd ak seen Cheikh mun taxa ci benn liggéey ndax euh, liggéey bi lenn rek la mooy jaamu yàlla ak dundal guddi gi ci bernde ak teral ñëpp lii daal moo ñu fi moo fi indi moo ñu fi bàyyi mu ñëwoon na doon xool wàllu réglage yi ci côté organisation rawatina it sëñ Muntaxa bi mu ñu waxee nañu tey ji ci ajjuma ji bu jullee ba noppi day ñëw euh, daanaka tàmbali moom ci kër sëñ Tuubaa gi ci ajjuma ji looloo tax tey jii dinañ ko gàttandu dinañ ko gàttandu ci njàngum xasida euh, ànd ak moom fii ci bis bi ba suba nag ñu door koo yendoo liggéey bi di wéy jërëjëf